asalaamaaleykum Sénégal ñi nekk fii ci réew mi ak it ñi nekk bitim réew ñu amaat euh, mbégte dajewaat ak yéen fii ci beneen waxtaan bu ñu namm amaat ak yéen di ko tàmbaleewaat toujours rek ci période bi ñu nekk muy Covid oblige di delloo njukkal suñu waa kër docteur yëpp. ak euh, force de l'ordre yeeg ñi nga xamante ne vraiment xar nañu seen tànk tubéy ngir Sénégal nekk ci situation bu jafe waaye ñu am lu bëri luñ ci maîtriser di leen dellu gërëm di leen dellu sargal di jaal ñëpp ñi ci dëddu seeni i mbokk di ñaan ñëpp ñi nga xamante ne tëral na leen yàlla fëgg seen bopp euh, ñu jóg ci ak jàmm ak salaam di wax rek ne waxtaanu tey bi li ko wundu mooy orange encore orange encore lu tax parce que le 22 juillet bii ñu weesu dañu def journée boycott bu massif Sénégal yépp adhéré ci biñ ko defee ndax dañu seetlu ne waaw ñun Sénégal réew moo xamante ne la nit ñi amuñu doole rawatina ci yenn gox goxaat yi koom-koom bi demee wu fa noonu ñu toll ci situation wu Covid sénégalais yi seen bokk ci lu ci ëpp ca ñu am dajale seen koom-koom jébbal ko nguur gi pour mu wàññi jafe-jafe yi. waa ci jamono bu toll noonee jafe-jafe yu bëri yu bëri ba toll noonee naka lañ mën a gis opérateur télécommunication boo xamante ne mu bokk na ci ñi ëppale abonné di xëy nam daan defee ay tarifam mu jël ko maanaam doublé ko pour gën a mën a teg askan boobu noonu coono ñu ne mais vraiment lii dafa doy waar lii ëpp na lii xel nanguwu ko. ñu jóg ci tàmbali ci ay waxtaan mooy waa euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore boykot orange jox ci ay jéego dem rencontré ci ARTP dem rencontré ci waa orange jëm cee waxtaan daal xool duñ ko saafara en tout ñu teg ay plan d'action yu tombe yu demee ni que boycott ànd ceeg ay yanamaar ci yeneen société civile bi ñu gis que ne bi mu amee. orange ci boppam moom àdduna def conférence de presse di ñu mbëllee di ñu ñaawal di ñu xamal ne moom position bi mu téye fa la te fas yéene wu koo wàcc kenn mënu ci dara ñu defaat beneen journée de boycott président Sénégal Macky Sall woo directeur orange ARTP jox leen sommation orange continuer di ñu ñaawal ne moom la mu jógoon la mu defoon du ca jóg ñu ne déet na waay mu indi ay coppite non seulement pas seulement pas ca lañ ko doon xaar mais ay coppite ca nam ko arrangé moom maanaam ca la fa newoon ñu koy wax mu indiwaat ko mu ne du ma ko indiwaat li ma indi bees lay teg te loolu laa leen di imposer par force da nga koy nangu par force mu jël loolu ba pare tegaat ci yeneen yoo xamante ni ñu laaj ko ko soxla wuñu bi loolu amee ñu gis que ni organe bi nga xamante ne moo fi ne. war a réguler a yemale ñi ñu jëm ci wàllum xarale gi ñoom seen ñoom ñoo mujjee soppaliku entre guillemets ay agent marketing orange di défendre orange ay tarifam yu bees muy ARTP ARTP mooy defal orange promotion ci tarifam yu bees yi maanaam tey boo ubbee surtout ARTP yow da ngay fekk ARTP ñoom daal ay agent commercial orange lañ ñoom ñoo ko defal communication pour défendral ko produit am défendral ko ay tarifam yu bees kon y a un problème mais sincèrement y a un sérieux problème parce que encore une fois ñoom Orange seen bopp ñi ngi def une désinformation ñi ngi wër di wax ne ñii ils sont à la solde d'autres euh, mais c'est faux c'est faux beneen argument bi ñu joxe mooy waaw yeneen télécom yi fi nekk ñëpp tubaab yee ko moom te ñun suñu bos au moins am na am na une bonne partie plus de vingt cinq vingt six pour cent yoo xam ne Sénégal la moom na Sénégal moom mille pour cent de orange na Sénégal moom mille pour cent de orange bu fekkente ne da nga nekk un service public moo xam sénégalais nga moo xam tubaab nga moo xam japonais nga soo respecté wul askan bi askan bi day génn jëloog yow yéen waa Orange seen communication boobu ngeen def en l'encontre de ces Sénégalais là yi nga xamante ne seen ay clients lañ pour la plupart jóg taxaw di waa leen wax di leen fàttali ne leen li ngeen leen bëgg a teg attanuñ ko yéen ngeen wëlbatiku au lieu ngeen satisfaire seen ay besoins ngeen di def ay désinformation en disant que non ñun sax société sénégalaise dañ à sa 26 pour cent xaw ma 40 pour cent nangama nangama nangama c'est pas un problème de sénégalais ngeen c'est un de bu dee sénégalais ngeen c'est encore s'il y a un gros pourcentage de orange bu Sénégal moom parce que c'est encore pire kon pourquoi vous ne respectez pas ces Sénégalais là yéen ngeen ne bi moo leen tax a jóg Sénégal am na ci ay pourcentage bu yaatu kon pourquoi vous ne nous respectez pas pourquoi vous ne nous respectez pas ñun les consommateurs nous ne sommes pas motivés par xeex orange pour xeex ko nous ne sommes pas motivés pour soutenir quiconque non orange dana fi nekk un service public mu bëri ay abonné bëri ay client clients yi ils souffrent clients yi dañu sonn clients yi attanuñu leen leen teg loolu moom moo waral ñu jóg di ko xeex bu ko keneen defee noonu lañ koy defee bu ko keneen defee itam noonu lañ koy defee waatee loolu dañ bëgg mu leer ngeen comprendre point boobu noonu c'est pas contre orange c'est pas contre mango c'est pas contre pomme c'est contre le principe que du ñu nangu aucun service public nekk ci réew mi di foye clients yi di foye waa réew mi di nasaxal waa réew mi di rësal poos waa réew mi di def ay bénéfices yu exorbitants di koy yóbbu ci ay réew tubaab di dem di toog du ñu ko nangu ce que vous faites aux Sénégalais vous ne le faites pas aux Français ce que vous faites en Afrique de l'Ouest vous ne le faites pas en France seen chiffre d'affaires defu leen ko feneen furul fii loolu lañ wax ne dafa doy respecter leen Sénégalais yi loolu lañ leen wax bu nekkee ne léegi nag ARTP nag moom cellule de communication orange la ñun xamatuñ ci mbir moomu dara war a askanu Sénégal xeex bi du ay état moo koy xeex parce que bi wane na limite am état du Sénégal a fini de montrer ses limites l' état Sénégal a fini de de nous démontrer de nous montrer de nous prouver de nous confirmer que nous n'avons aucune autonomie en termes de télécommunication amatuñ ko moomuñ suñu bopp ci dara télécommunication ça ne nous appartient pas. beneen bi mooy agence boobu mu teg agence boobu noonu instrument la aujourd'hui qui sert à Orange de communiquer ci ay tarifam yu bees vous vous rendez compte RTP qui fait une conférence de presse pour parler du nouveau tarif d'Orange di ko di ko di ko valider en fait di valider Orange ay tarifam te moom nekk mu nekk organisation mu nekk agence de régulation c'est hallucinant c'est hallucinant on va droit droit droit dans le mur Nous, Sénégal, c'est mort, quoi. C'est mort. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Kon nag askanu Sénégal xeex bi ñoo koy xeexal suñu bopp ñoo koy xeexal suñu bopp président bàyyi na loxoom banku na wañaar nañu loxoom dem na sax seeti Macron xaw ma lu mu fa wax ak Macron intéressé wu léegi ay milliards bàyyi problème mu Sénégal yi bàyyi jafe-jafe yi. bàyyi ñu ci mbënn mi mais ci nekk ci mbënn mi nekk ci biir ndox mi nekk ci jafe-jafe yi am suuf siy lekk nga bugg ko jël yokkal ko lu muy wootee téléphone def ko ay somme yu exorbitante mais kooku mënu ko mais sénégalais boobu mënu ko orange boo nekkee Sénégal un pays sous-développé un pays bu amul ay moyen da ngay adapté wu ci pays boobu noonu ni mel da ngay adapté ci jafe-jafe réew moomu noonu réew moomu noonu nekk ci nawet nekk ci ay côté mbënd yu la nga waroon sax xëy di def ay journée free free call parce que xamoo fa ay urgence di am ci réew mi da nga waroon mettre à la disposition de ces sénégalais ay numéro vert yu ñu mun a nekk fii lañ nekk ok soo defee lii mun nga composé lii mu nga def laa nit seen poche ay milliards rek ay milliards rek yéen foqale rek foqale rek wan rek warax rek lekk rek du du sotti du sotti que ce soit vous que ce soit cette agence de je ne dirais pas je ne di favoriser la ñuy def état du lu ñu njëriñ. moo tax dinañ leen wan suñu dogu ñun waa Sénégal dinañ leen wan suñu jógu dinañ leen wan suñu fulaak suñu fayda looloo a sama gars yi suba incha allah suba talaatay orange la suba talaatay orange la boycott massif mais boycott bu musul am il faut que ñu def ko boycott bu musul la am bu rëy un million de sénégalais mun nañoo boycotter suba c'est possible très possible wax nañ la ko neneen la soo boycotté fayal sa téléphone comme ça doo wuyu doo woote doo jënd crédit doo yónnee Orange Money doo jot Orange Money doo jot SMS doo envoyé SMS boo ko mënul ba mënoo ko tegal téléphone bi nële utal beneen téléphone def ca beneen piisu keneen yaa xam ku doon soo amee appel boo xam ne urgence la nga woote ca sa répertoire am nga ko jëlal sa répertoire nga woote numéro ya nga xamante ne mënoon nañu ñàkk a woo ci bés boobu ci bésu ëllëg bi solution la beneen solution bi defal portabilité jógeel orange nga dem feneen en conservant sa même numéro mën na nekk c'est très possible li laay war a soli gars yi suba boykat bi fokk ñu jëmmal ko ci côté bu ne foog ñu jëmmal ko bu baax a baax a baax parce que nag monopole bi orange am ci réew mi dafa ëpp loxo te bu jàllee te bu jàllee dina garaaw lool ci Sénégal bras fer bi ñu nekk di def ak orange bu ñu bàyyee orange mu réussir ko mu nangu ko su ñu bàyyee orange mu gagné dinañ souffrir trop on va se retrouver demain carte crédit yi dina gën a cher ay séddoo la xaw ma am yeneen forme la ñuy indil parce que dañuy essayer dañuy essayer c'est les colonisateurs c'est les colons ils essayent dañuy ñëw talal la bant ne la way yi dañuy ñëw pour évangéliser leen wala ci moo xam après xëy suba indi leen c'est des colons ils nous bouffent ils nous sucent ils nous exploitent ils ne nous il faut que ñu xeex ko loolu ñun ñoo koy revendiquer ñun ñoo koy xeex nguuru Sénégal mënu ci dara parce que banque na loxoom ARTP banque na loxoom nañ ko xeex pesum kanam la nit moo koy fajal boppam li laay war a soli suba massivement massivement kaay leen ñu boycotté suba ñoo leen ñu boycotté boo bëggee yónnee xaalis seetal keneen koy yónnee jaaral feneen nga yónnee ko xaalis ku lay yónnee xaalis tey jii woo ko ne ko yónnee ma ko jaarale ko feneen il faut que ñu am cette compréhension de la chose tant que les gens là tant que ces gens là de Orange ils se réveillent pas demain ñu gis que bu ñu doon jaay mille cartes par jour jaay mi sax deux cent du ñu reculer ñoom et yow mii naan kenn xafoor dina ko def non Alassane dina ko def non Aliou Sané dina ko def man garaaw bàyyi ma jël sama téléphone rek yow yaa ñuy il faut que ngeen adhéré il faut que ngeen adhéré ci boycott bi arrêté de dire garaawul kenn def na ko man bàyyi du ko def ñëpp am ay business yu ñu réglé ñëpp ay xaar ay appels yu important suba ñëpp ay xaar peut-être même envoi d'argent bu am important suba mais sacrifice su 24 heures boobu noonu moo lay dimbali nga mujj ilal abat mais soo bañee sacrifié wu suba coono bi dinañu rattrapé waat encore ginnaaw suba ak ginnaawaat suba ak ginnaawaati suba mais nga takk sa biir benn fan fay sa téléphone wala teg ko nële bañ koo wuyu ku la oo munoo koo ñàkk jël nga jël beneen numéro ooyee ko ci mais yooyu daal bul dugal cent franc ci compte orange kooku dafa am solo ñu def ko suba loolu moom moo ñu dimbali ñu génn ci insha allah rabbi parce que bras de la bras de état bi waroon jouer par na xam nga ngay xeex ak nit ka war a arbitrer faral c'est le combat du peuple sénégalais ou bien des clients de Orange contre Orange l'arbitre qui devrait être l'État du Sénégal a pris position jël na part moom Orange la faral jëlal na ko part ànd naa ak moom agence am bi war a toog pour réguler defal na moom Orange conférence de presse di ko tagg di ko magnifier di ko di ko yëgleel ay prime di ko xalamal ay prime di ko di ko di ko di ko di di ko yaataa yumbel noonu loolu kon ñun kan la ñuy xeexal orange ak la ko wër ak ñoom mu àndal muy état du Sénégal bi nga xamante ne amul indépendance ci dara moomul boppam ci tous poupée marionnette caaxaan situation bu tar sénégalais yaa ci biir ndox mi ci biir mbënn mi nga dalaas nank dem Paris lebi ci ay xaalis pour sa terre bi nga xamante ne à vendre la nekk depuis six mois loo fi inauguré woon ci début élection yi ne inauguré nga ko teer bi pare na dugg ci ànd ak sa njaboot dox ba fu la neex xaw ma Pikine xaw ma Rufisque gaare ne wayu teer bi nangam nangam caaxaan kese caaxaan kese xaalis bi orange bi liggéey par bés xaalis bi orange bi liggéey par at muy jaar ñuy suulamee comme ça di dem France comme ça ñu koy perte nii comme ça parce que amuñu fula parce que suñu nguur gi liggéeyul parce que suñu nguur gi amul détermination amuñu amuñu cran amuñu mais vraiment amuñu amu leen courage quoi mais vraiment nguur Macky Sall amuñu courage quoi mais vraiment lii c'est grave quoi nga teg sa agence ne moom mooy réguler sa agence boobu noonu amul fulawu wax orange bàyyi li ngay teg client yi mais kon loolu lan la mais une agence de l'État qui n'est pas capable de demander à une société d'arrêter de sucer le sang des Sénégalais loolu mën kon agence boobu jarul elle n'a pas sa raison d'être lan mooy rôle ARTP mais vraiment lan mooy rôle quoi. kon nag ñu askanu Sénégal duñ toog di ko seetaan te bii yoon ci boycott bi dafa ànd ak beneen coppite coppite bi mooy comme Covid bi dafa tax ba mu mënuñoo def rassemblement ba ñu bëgg Orange ñoo la gën a xam ne bu rassemblement mënoon nekk million de di dinañ ko gis dëkk yëpp Sénégal bi yëpp la ñuy gis Orange ñoo la ko gën a xam Orange moom ñi ngi ñaan ñoom rek ñooy ñaan corona continuer parce que ñoom xam nañ ne bu du woon corona tarif bi changé nañ ko y' a deux mois ci ginnaaw y' a parce que kon gars yi gën nañu assiégé fépp fu orange nekk ci Sénégal ñoom ñoo la gën xam loolu moo tax coppite bi suba soo boycotté ba noppi par juróomi personne jël leen lettre bi mu ngi ci biir situ Y'en a marre mi ngi ci situ waa orange boycott mi ngi aussi ci page Y'en a marre yi page Facebook yi page waa orange boycott mi ngi sax nii fii ngeen koy seetaanee nii dinañ ko fa dugal léegi nii jël leen ko ngeen tiire foo munti nekk ci Sénégal fu agence orange am par juróomi nit ngeen dem déposer ko c'est une lettre déposer ko demain mais demain à partir de dix-huit heures il faut que waa orange et leur direction se retrouvent avec un million de lettres comme ça c'est ça l'objectif les gars il faut qu'ils se retrouvent demain avec un million de lettres comme ça bu dee da nga cinq personnes rassemblement par benn nit ngeen di dugg le matin mu ngeen recevoir xam nga nit ñi da nga xëy suba ne ci agence soxla yow xëyal dem sa soxla mooy nga déposer lettre bi dem sa soxla mooy nga déposer lettre il faut que ñoom ils se retrouvent avec un million un million de lettres suba c'est très possible les c'est très possible cinq minutes la booy xëy di liggéey sax cinq minutes rombal rek nga dem déposer lettre bi seen biir boîte à lettre nga dem jox ko ñoom ñu yor il faut que ñoom yeewu gis lettres yi nii il faut que demain 18 heures que waa Orange se retrouve ay 1 million de lettres comme ça lettres yi gis ngeen ko mi ngi doon disponible na ci biir live yi fii mi ngi ko fi gis ci biir Facebook bi ci Facebook boycott Orange et puis partout dina circuler ci Facebook tiire ko boo ko mënul soo ko mënee tiire yow ko mënul tiire na ñaan ko ko ko tiiree bu ñu ba photo ba pare ngir bu ngeen di déposer ci seen lettre prenez la photo et photo bi posté leen ko partout bu ngeen mënee envoyé lanu mais posté leen ko na nit ñëpp xam ne man de bésu talaatay orange ba bés bi ñuy dagg suñu buumu bokkoon naa ci Sénégal yi daggoon buumu jàmm ndax dem naa déposé lettre bi photo wu naa posté naa ko bu mun ko wan doom wan ko say sët leen ne bi nguuru Sénégal bankoo agence ba mu teg nekk à la de orange à la solde de ñeneen ñeneen ñun waa Sénégal ñoo ko xeex te bi ñu koy xeex maa nga ca woon sama lettre yi nii déposé naa ko jël naa ci sama photo kon Sénégal mbir mi leer na lettre bi mi ngi partout mu ngeen ko gis yéen ñépp li laa war a sóol yi nekki suba boycott bi nag tey mi ngi tàmbali à partir de minuit jëmaat suba ca minuit ngir yàlla respecté leen ko ngir yàlla bokk leen ci ngir yàlla kaay leen ñu xeex suñu yëfa parce que bu dee nguuru Sénégal la pare buñ ñu ko xeexal su dee ARTP la ko waslu àq la tudd waslu àq il faut que ku ne was waslu àq ni ki suba dem déposer ji lettre bi jël ci sa nataal yónnee ko pour que ñu xam ne ëllëg bokkoon nga ca combat boobee kon waa Sénégal loolu la ñu indiloon tey ci waxtaan bi di wax ne que bi du jeex ndax bu ñu jógee ci orange dana am beneen compagnie bu ñuy saytu muy waa canal horizon canal horizon ñoom it li ñu nekkee Sénégal dafa doy waar tarif yu cher da ngay abonné 5000 doo seetaan benn chaîne canal ay RTS ak yooyu RTS moom fexe nañ ba antenne bi sax boo demee biir Fongole mi doo mën a seetaan RTS tant que jëndoo parabolu canal horizon nga fay parabole jënd décodeur fay encore par mois 20 000 francs mooy bouquet bi nga war a mën a seetaan 3 chaînes wala 4 chaînes naan ay semaines généreuses il faut que sénégalais yi ñu am fulla am fayda il faut que ces gens-là commencent à nous respecter société yi nekk fii ci réew mi consommateurs yi nekk ci jàpp ci foog ñu delloo askan bi ak yi seen àq kon à bon entendeur suba la boycott massif bu ànd ak dépôt de lettre ci agence orange fépp ci Sénégal foo munti rek am na agence orange photocopier lii nga dem déposer ko am nañ boîte à lettres am nañ service de d'accueil am nañu service de jeune réception wala autre chose nga ñëw nga déposer fa lettre bi enveloppe ñaar dërëm lay jar photocopie bi ñaar dërëm lay jar fukki dërëm doo ko dépensé nga taal nànk sa oto nga jël sa saret wala nga jël sa vélo wala nga jël sa jakarta foo mun di nekk ci réew mi wala nga dox ndax soriwu la nga fëgg nga dem nga déposer ko pour xamal orange li lim ñuy teg dootuñu ko nangu ñun nag ñoo koy xeex suñu bopp ndax pesum kanam la boo koy def jëlal sa photo nga immortaliser ko nga yónnee ko ci Facebook bi partout soo ko xamul foo ko def yónnee ko Facebook Y'en a marre danañ na ko posté waaye combat wu suba bi képp kuy sénégalais képp koo xam ne nii am nga yërmande ci sénégalais yi nekk ci mbënn mi ñu bugg leen tegaat encore coono yi jëndum téléphone jëndum crédit woote bu métti woote bu jafe ñëwal nga bokk ci xeex bi la suba li laa war a sóoli pour ñu mun a xeex lii ndax pesum kanam la te état du Sénégal banque nay loxoom kon nag Sénégal lu fi jub lu ne lu fi dëng sama matadi la leen jox jox daje beneen i fan incha allah.